fa tabaarakallaahu Cheikh Al Hadj xam-xam bi nag moom la ko yàlla njëkk looloo njëkk a yéeme xaju fi yàlla daf ko fayee magam loolu la ñu bari xamul Cheikh magam la ko yàlla fayee magam dafa juddu yaayam yor ko baayam di jiite julli yaayam toog ci ginnaaw yor xale bi tëral ko kàbbar ànd ak baayam til li jógee ca àll ba ñëw yéey xale bi ba mu mokk yaay ji yënguwul ban jigéen a ko fi mën dinaa ci joxe beneen exemple balaa may continuer Cheikh Mohamed Al Ghali waaw ah, ak góor Cheikh Mohamed Al Ghali toog na di laazim doomam waddee ci étage bi ne fàtt ci kanamam mu continuer laazimam ba laazim ba yeggal Cheikh Mohammadul Xaali laa wax de laazim ba yeggal jóg xool xale bi fekk mu faatu mu defar dem suuli ñu laaj ko mu ne ñu laaj ko lu tax jógoo wëllu xale bi baraat mu ne di ma toog ak yonent bi di jóg ngir leneen pour la sallallahu alayhi wa sallam yooyu ay étape la góor gi sëlmal geesu ne ko ana xale bi mu ne ko till gi yéey na ko mu ne ko lu tax waxoo ma ko ñu sëlmal julli gi dogandu ko mu ne ko ëpp naa def ndax man yow laa yaakaar te xam naa ne yaa ngi ci sa borom te ko nekk ci sa borom dootal tal dara góor gi wëlbatikuwaat jublu xibla ne yàlla remplacer ma kii ma ñàkk ku ko gën koo xam ne ñépp danañ ko xam fi dunya wal balaa ngay dégg lii ma nettali ku la ko nettali da sonn man fi may jëlee moo naqari gars yi nañ dee xul muutu bi xay ba nga gis ku la nettali lii ba gis ku la nettali ci la góor gi ñaan yàlla defal ko mu judd di Cheikh Omar kuñ fayee la duubul la Cheikh duubul la moo tax mu garaw duubul la moo tax mu garaaw mu ne sama baay wax na ma barki démb mu ne Cheikh Umar mu ne du li mu nekk sama maam mu ne du lim lekk maamu tax waaye fondement bi yàlla def ci waaye fondement bi yàlla def ci suuf. juróom-ñaareelu suuf juróom ñaareeli suuf. Cheikh Omar xam na ko Cheikh xam na ko. bi mu def ci juróom-ñaari asamaan. Cheikh Omar xam na ko. mu ne li waral loolu. dafa am benn taalibeem boo xam ne. dafa am benn taalibeem boo xam ne ay socc lay jaay. mu ne ko boo xëyee di jaay. mu ne ko boo xëyee di jaay. del wax yaa Cheikh Omar. del wax yaa Cheikh Omar. yaa Cheikh Omar. yaa Cheikh Omar. mu ne bu demee bu génnee rek. jaay socc yi jaay socc yi. ñibbisi ñibbisi. daal di def ay dépenses daal mu ne benn bés mu gis benn waay bu yor sunguf. da ngay jaay socc ne boo ko sangoo. mu ne ko boo comme da ngay jaay sangoo dana baax mu jël sunguf bi sangoo ko. daal di xëy jël euh, euh, socc yi dem jaay. daal di jël xëy socc yi jël socc yi jaay. yéen doo wër ba jant soo. bi soo kenn newu ko ndong sa. mu ñëw ci Cerno mu ne ko tey sama bés bi neexul

ne gi tuubal na yàlla tuubal ne góor gi Thierno Bachir tuubal naa yàlla tuubal la fii ci parcelle gii ci kër gi Thierno Bachir Tall Cheikh Omar buñ ko toppee xam-xam bi xam-xam bi laay wax rek loolu mu wax ma wax la ci benn rek mhm. xaaf du da koy dégg ci alxuraan xaaf bu yàlla di wax ci alquran moo ne ci juróom-ñaari suuf nuun du ngeen dégg yàlla wax ci alquran nuun wal quran nuun moo ronu xaaf nuun jën la moo tax yàlla feddaliwaat ko ci alquran ne wazal nuuni iz zahaba mugaadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fa naada fi zulumati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yàlla ni mu bindee suuf juróom-ñaari suuf la werante moo ci am Ousmane yaa yaa ñu laal Cheikh Omar a fi ne moo tax am na ñu ne dafa yàlla dafa bind suuf benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn ba juróom-ñaar am ñu ne déedéet benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom-ñaar bu ci nekk ak sa profondeur waaye li gën a wóor mooy du noonu nii la benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn ci nekk bokkul ak moromam couleur asamaan it noonu la werante daf ci am ñii dañ ne dafa sof benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom-ñaar ñu ne déedéet tabaqaat yi yàlla wax moo tax benn la ñaar ñett ñeent juróom juróom-benn juróom-ñaar te yonent bi bi muy rañaan leeral na ko noonu mu amee juróom-ñaari asamaan am juróom-ñaari suuf yàlla dafa am lu mu téyee suuf ni mu téyee asamaan dafa am benn nag moo nekk ci suuf moo ronu suuf moom lay nag woowu la yàlla doon junju waa baqara moo tax mu tuddee suratul baqara nag woowa la yàlla doon junju moo tax mu reyloo leen nag lu tax reyloo leewul gëlëm wala xar wala béy walla ganaar ndax mu utloo leen nag parce que nag moo ronu suuf nag woowu mooy ronu suuf déglu leen wax bu baax nag woowu ronu juróom-ñaari suuf qaaf moo ronu nag wa mooy xeer wa moo ronu nag wi nag wi ci kaw xeer wi la rëññeelu xeer wu nuun jën wa wal xalami moo ronu xeer wa xeer wa ronu nag wa nag wa ronu suuf si nuun boobu nag la yàlla di géñ ci alquran ne nuun wal gis na ni yàlla di waxee nuun mii ak xalam ba ca kaw bind nuun moomu man yàlla maa ngi génn ci lool mu ne wamaa na ak li ma bind yëpp doxale ko ci diggante bi nuun woowu nag xaaj Abdul Aziz ba mu ñu koy nettali ku bëgg yi dangay jege mag ñi nee na taw bu njëkk bu amee bu tawee taw bu njëkk nee na nag wi day naan ndox mi yépp buusu ko bam ñu koy nettali dem na benn ñuy buusit booba sax am na lu ci mag ñi di def ma ne ko xanaa ku ko gis moo koy tànq ba di xam luñ ci def moo tax buñ la nee Cheikh Omar xam na la suuf nga war ko mën a gëm Cheikh xam-xam bi wax na yëkkati loxoom ne mboolem kutub yépp buñ jiigoon ci géej wala ñu lakk ci safara man Cheikh Omar danaa ko bindaat ci sama loxo ak seen sarxaya te duma ko xool xanaa fa la xam-xam téere yi la wax mboolem kutub bu yépp lakkoon mu ne danaa ko bindaat ak seeni sarxa te duma ko xool cheikhu jàng njàng mu réy juddoom Abdou Aziz Fall wax na ci imam Masil Lakan wax na ci ñeneen ñi wax nañ ci waaye ba njàng ma réyee la ma ci intéressé woyof ga xam nga tukkulóor dafa rëy tukkulóor a rëy tukkulóor ñu baal ma de waaye bu jàngee rek woyof na waaw bari na kooy gis muy bëccëg mën na la jàngal risaala waaw waaw tukkulóor yi di bëccëg bu foo gis tukulóor bu rëy rek jàngut waaye bu jàngee rek woyof xoolal Cerno Bachir xoolal imaam Ahmad si xoolal ñeneen xoolal ñeneen bëccëgkat yi ngay gis ñuy bëccëg koo ci gis boo ko nee tëralal ma risaala mu tëralal la jàng ba yegg ci xalil mokkal xalil di wër di jaay bëccëg ban étudiant bu am lisance moom ngay gis muy bëccëg wax leen ma Imam Moussa gis nga ko étudiant bu am licence université di bëccëg am na te risaala mën ko moo raw licence mu del si ci li Baye Ahmad Sànqe doon wax ànd ak loolu yëpp ànd ak loolu yëpp Cheikh Omar jógee fi def mu jaawara dem Medinatul a eh, dem Makkatal Mukarram ci tegtal yu ko yàlla wax yonent bi wax ko ko Cheikh Sid Ahmad Tijaani wax ko ko ne ko demal li nga bëgg ci yàlla bëgg ko ci xam-xam fa nga bëgg a yegg ci yàlla kenn mënula fa yeggali ku dul Cheikh Sid Ahmad Tijaani te jox na ndigal taalibeem bu ñuy wax Cheikh Mohamed Al Ghali moo la fay yeggali Cheikh Omar bëtt gox yi di dem dox ak tànkam ba Makkatal Mukarram waxtu takkusaan la yegg ci kaaba gi waxtu wi Cheikh Omar njëkk a julli ci kaaba gi tàkkusaan la affaire la fekk jant bi soowagul naaj wi tàngul sedd na koo koy Omar mu julli tàkkusaan toog ci maqamu Ibrahima def laazimam geesu gis génn góorug naar gu toog mu jox ko loxo nuyu ko ne ko min fan mu ne ko min mu ne ko kon yow lañ ma yónnante bi waxoon ndax maa ngi koy gis ci sa kanam sallallahu alayhi wa sallam yaay sama sëriñ li may ut yow yépp nee na mu ngi ci sa lox nu may def ak yow <laughs> li ma lay wax ne ku woyof la woon xoolal xam-xamam boobu fi mu toll woon Cheikh Mamadou Al Ghali ne ko foo tollu ci xam-xam mu ne ko mbooleem téere yépp buñ jiigoon ci géej wala ñu lakk ma bindaat ko te duma ko gis ak seen sharax mu ne ko xamoo dara la ngay ñëw ma dalalaat la lax awwalu ma yajibu alal mukallafi cheikh Mohamed Al Ghali wax ko cheikh Umar xoole ci tukulóor bu jàng ba yegg foofu ci xam-xam xanaa moom la yaa cheikh bi roy ku ñëw mu delloo la baa sim mi ma cheikh Omar nattaable wut sax ne ko bismillah amul problème mu commencé ko bunt awwalumaa yajibu Cheikh nee na bam ma jàngalee buntu awwalumaa yajibu ca lañ nekk ba timis ñu julli timis wasifa nekk ci ba gee ñu julli gee wasifa nekk ci ba fajar ñu julli fajar wasifa mu ne ma te bunt bi jeexagul mu ne keroog laa xam ne ndekete jànguma mu ne maag moom téere par téere téere téere téere ñu doon a dugg nag ci wàllu baax baatin li ma xamoon yépp mu révisé waat ko lépp mu tëggaatal ma ko defaraatal ma ko ya baaxoon mu yokk ko yam ca waroon yokk mu yokk ko benn Abdou Aziz Fall waxoon ba benn des ca mu ne ah, bii nag dama koy garde Seydina Cheikh ne jamet ci kanamam ne ko amoo looy garde moomoo Cheikh Umar moom jox ko jox ko yëfam dañ laa dënk rek ndënkaane jàmbur mu jóge fa dem Madinatul a yàgg ci raw damay damay damay foofu wala maf ñaandu jëflanteeg yónnante bi mu baasaratan sallallahu alayhi wa sallam ñépp teg seen bët Cheikh Mohamed Al di gis ndax booba am na secret bu mu njëkk laaj Cheikh Mohamed Al Ghali Cheikh Mohamed Al Omar mel def cent mille salaatul fatih ci rawdu yónnante bi rawdu yónnante bi génnee loxoom jox ko lim soxla nee naa ñaar kenn ko ci doon ci kaw suuf ci loolu mooy El Hadj Abdou Aziz moo ko nettali ma dégg te keroog ba mu koy nettali dafa ne maa ngi ko am ci barke Serigne Babacar Sy fii ci Tiwaawan ci rawdu bi Xalifa Jàllo mii fekkee na ko mooy photo boobu El Hadj Abdou jàpp ci rawdu bi sol yére bu weex di génn keroog la wax wax bii may wax dinaay fende de waaye xëy na benn yoon ci at mi te ragal ku ma dóor a tax waaye lu ma la wax rek dama lay indil preuve xalifa jàlloo ngi nii këram a ngi nii duwaañe la waa këram ak may dégg bu ñëwee ngeen laaj alaaj Abdu nit ñi di raj raj loo di ko nuyu fekk mu dugg ci xabru bi ziyaare bay génn ci suba teel bi ñuy raj raj loo di ko nuyu mu ne puus leen li ngeen di def xam naa ne sax gëmu leen ko ndax su ab du ñëwee ci zawiya bi zawiya bi fees su ab du demee zawiya bi du gis kenn wolof du jaamu yàlla nit lay jaamu wasifa bi su ma fi neexee mu xumb neex su ma fi neexul dara du fi nekk su ma fi nekkul kenn du fi ñëw waaye man su ngeen ma ormaalut fonk leen ma yit am naa ci yónnent bi loo xam ne ci barke Serigne Babacar si yéen amu leen ko <laughs> mu ne ndax dem naa ba ci raw du yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ngi nii sallallahu alayhi wa yaa ngi may gis maa ngi lay gis waa Sénégal ga ma jógee ak àddina bi yépp ne nañ Abdou dafa baax te billaahi mbaax googu ñuy wax ci Abdou dara wóoruma ci ndax yëguma fu ma defalee yàlla lu tax ma baax kon ma di la ñaan ci sa barke yow sallallahu alayhi wa mbaax googu su fekkee am na lu ci am dama bëggoon a gis dogit bu bokk ci yow mu ne billaahi yonent bi ne ñu xeet loxoom ci rawdu bi man abdu ma fóon ko mu ne yàlla defalaat ma ko ca faas te loolu Cheikh Mamadou Al Ghali mii rek la ko Cheikh na Tijaan yi defal ci kaw suuf alaa doo ko ñaareel dañ toog ca kawlax mam buubu jaw muqaddamu Seydi Hadji Malick la nekk ca kawlax mu ne fii ma toog di waxtaan ak yéen ab doo nga ca faas di ziyaare Cheikh Sidi Ahmad Tidiane waaye Cheikh génnee na loxoom ab doo nga koy fóon diw ak diw gis nañ ko alaajab bi ñoo nettalil ko bopp yàlla ci baaxam Cheikh Omar def loolu yonent bi génnee loxoom jox ko lim soxla Seydina Cheikh feeñu ko yaqazatan ne ko waxal Muhammad al mu jox la li ma ko jox Cheikh Mamadou woo ko ci raw du yonent bi toog seedeloo yonent bi ne ko Omar a ngi maa ngi Cheikh a ngi li ma Cheikh joxoon jëlee ko ci yow jox naa ko Omar deseetuma dara lépp mat na sëkk Omar yaa ngi maa ngi Cheikh a ngi yonent baa ngi. feek maa ngi dund maay sa sëriñ waaye kër bu ma dee amatoo sëriñ ci kaw suuf Cheikh Omar jógee fa ñëw ci Kaaba gi di def tawaaful. tawaafu tàggoo tawaaful wadaa widaa tawaaful widaa di tàggu kaaba gi pour fas yéene nag ñibbi si Sénégal ñaar yëpp baax na moom naxoyen la dégg fi muy tàggu kaaba gi def ci xolam ne fas naa yéene taal jihaad ji ko yónnent bi wax sallallahu fi mu ko def ci xolam tawaaf ba pare julli maqaamu ibrahima toog di def ay dogam pour tàggu kaaba gi gisaat keneen kum dendeel te bàyyi Muhammad al Ghali ca Medinatul Munawwara bi yoon nuyuwu ko kookaa nuyu ne ko Omar al Fuuti Sénégal yi mu ne ko yaay kan mu ne ko jinne sàngam laa tudd duma nit dama laa sopp rek bokk ci say taalibe xam naa miinoo ma waaye dama lay laayee biir mu ne ko li tax ma ne ci say taalibe laa bokk taalibe Muhammadul Xaali la te ba mu lay jox yëf ya maa nga toog jinne waa jinne mu ne ko moo tax ma ñëw dogandu si la nii njëkk a jaayanteeg yow Sénégal ga nga jëm nag yaa ngi def ci sa xel mii ne da ngay taali jihaad waaye bul taal jihaad mukk te demoo dëkk bu ñuy wax gunjuur ca bi mu ne ko ndax juróom-ñaari iqlim yi xam nga ñun les cinq continents lañ jàng ndekete set a am sept continents moo tax set jawharunul kamal yónnent bi ne put set a am xaqiiqiya set moo am waaye ci àddina ci tënku àddina cinq ans waaw bi ni mu teewee fii lay teewee ca. fépp mu ne ko moo yow yow waxaguma li ma bëgg yow nga di ma wax li ma bëgg mu ne ko waa dama lay dimbale mu ne ko yow foo dëkk mu ne ko Gunjur laa dëkk waaye am naa jabar Kabakoto bul dem Gunjur te jaaroo Kabakoto ndax am na leer gu fa nekk war nga ko vérifier am loo ca jël am loo fa bàyyi door a dem Gunjur mu ne ko yow foo am jabar ci Kabakoto. mu ne ko dëkk bu ñuy wax euh, Kabakoto ca tabaga ca bunti kër ga fa laa am soxna loo gaaw gaaw di ma fa fekk dem naa ba Kabakoto man nii fa Cheikh Omar toogoon jàpp toog naa fa jàpp fanaan naa fa yendu naa fa dem naa ca xabru Cerno Baaba Li Cerno Baaba Li Cheikh Omar a ko joxoon dërëm ne ko demal aji Màkka soo demee ziyaare ji yonent bi salaay sallam dërëm bi joxal ma ko ko àddiya baabali ñu ngi ko rob foofa baabali mooma falaa takkale woon Ibrahima Seck mii soxna suñuy wax juma juuf man duma fen de moo tax buñ ma gisee mën a ñumb nii ñu foog ne man dama ne ñumb nii rek moo ci ñàkk fayda man fu ne dem naa fa moo tax Abdou Latif yal na ko yàlla yërëm daf ma daan wax man yow ñaata at nga am ma ne ko xamoo ko mu ne ma yow ku ma koo gis nga ne ma am na ñaar fukki at dëkk bu ma wax nga ne ma dem nañ te yow amagoo téeméer ya yal na ko yàlla yërëm Abdou Latif moom daf ma daan reeloo ma ne ko teel a sob teel a léej teel a bëgg lu baax rek teel sob teel a léej teel a bëgg lu baax foo xalaat béggam bi barki rasulullahi am na fu ma dem foo xam ne ñemewu ma ko nettali hmm, dëgg hmm? am na ci dëkk boo xam ne bi ma ciy dem ca gàm bi maa ngi yor góom bii booba <coughs> xur wi bi may dugg ci xur wi foogoon naa ne ay jësit danañ ma lekk góom bii keroog maa ngi koy wax Souleymane Seck ah, def naa man huit ans Cheikh Omar Fouti yi moo ko faj mu ngi ni ku gis lii xam nga ne du du wutoon góom bu ndaw dem naa ba médecin tubaab bi ma doon faj médecin tubaab bi ma doon faj woo sama papa fekk sama papa tukki ba ñëw ñëw bànjul mu woo ko ma ñëw mu ne ko this boy his leg with bi eh, eh, eh, nuñ koy waxee will be cut ma ne ko what are you saying my leg mu ne yes ma ne nobody else will cut my leg mu ne ma are you a doctor ma ne ko yes am a doctor of myself you are a doctor of yourself I know myself mu ne ma dañuy dagg sa tànk ma ne ko man ñu dagg sama tànk kenn du dagg sama tànk ku yàlla bind muy dagg sama tànk gisaguma ko mu ne ma xanaa docteur nga ma ne ko duma docteur waaye sama docteuru bopp la yow sa docteuru bopp nga waaye man sama docteuru bopp la mu ne génnal sama bureau ma ne ko ndokk sa papa dafa daw génn bureau bi vingt 84 ma ñëw soo kon benn médecin tubaab bu ma doon seeti ci benn dëkk bu nekk <coughs> neema nding la dëkk bi tudd mu nga ca gannaaw Medina bay Mass boo fay dem benn xur ngay traversé bi may dem nee ma nding dama dox aller retour dama ko dox bi may traversé xur mi foogoon naa ne keroog foofu laay yem bi ma demee benn tubaab bu jigéen laa fa fekk mu consulté ma xool ma ci laa xam ne masiix yi am na lu leen yàlla may imam jigéen la mu xool ma ne ma yoo am na loo yàlla defal xamoo ko waaye dama bëgg ñu ànd Suède ma ak yow bind lettre jox ma ne ma boo demee jox ko sa papa bu d'accord ma yóbbu la Suède ma ñëw jox ko sama papa mu liir ko xotti ko ne ma Suède lan ci gàttal kabaaku dama leen di wax ne loolu may tudd yépp dem naa fa Kabakoto ci boppam falaa takkalee Juma Juuf Ibrahima mii mu am ci seex am ci Babacar Serigne Babacar si am ci Abdou Aziz Alaaji Abdou ah. am ci Adama eh? yal na ko yàlla yërëm mu door a faatu man mii maa ko jullee 33 ans ci la faatu keroog maa ngi ànd ak ay dara ak Khalifa Ndiaye Khalifa njaay taawam man la ko tuddee moom it falaa ko takkalee soxna ci tournée boobu. ñu ne ma juma jàng na ba nekk université waaye safara lay bañ gis ko bu jubee safara rek day mel ni ay yëmba lañ koy tuur ak ay sanqale ma ne leen loolu c'est faux type la yéen xamu leen dëkk bi ngeen nekk dëkk bu Cheikh Omar wàcc fanaan fa ay guddi jaamu fa yàlla taalibeem bu ñuy wax baaba li tëdd fa ah. nit di feebar te wérul loolu ay fen la ma ne topp leen ma ma ne ko juma acca ñëwal muurul te ñëw mu ñu mu ñu muuru dem ma ne ko toogal ci gannaaw rawdu bi ma dugg ànd ak Cheikh Aydara ma ne ñaari baat laa wax baabali bu fekkee li ñu wax ci yow dëgg la Cheikh Omar moo la jox li nga am juma mii na wér am jëkkër ami doom laaj ko mujj na lu lu lu am yeen moo ko togg moom juma te safara la doon bañ Oh. moo tax li ko yàlla bàyyil yàlla na barke. amiin amiin ah, kii dañ yàgg de kii on se de. bi yàgg na mm. kii xamante nañ bu baax. Oh, ngi ah. te ingénieur informatique la. ndeysaan ah wax bu amul preuve baaxul. Oh. kabaakoto boobu nag ba fa Cheikh Omar fa la fekk maam Diarra waaw te baayam moom moo ma ci jox ndigal waaw hmm? ndeysaan hmm? te fekkeewu ko ah. am am bi am bi bàyyi ko bàyyi ko am ah yàlla da nga koy jënd inna laaha ashtara min almuminina bi anfusihim wa amwalihim lu tax bi anna lahumul jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yuqtaluuna wa yuqtaluun waadan alayhi xaqan fi tawrati wal injili kenn munu ci dara yàlla kenn du ko am ci diggante muuraakeeg cuuraay ah ah diggante muuraakeeg cuuraay yambar rek a fay génn ah ñàkk fayda Cheikh Omar foofu ci Kabakoto ba mu fa yegsee ba waxanteeg jinne ji fekk ko fa boo demee ci Kabakoto ci buntu dëkk bi am na benn teen bu fa nekk teen ba ñu ngi ko tuddee duy daagu ba bi ma fay mujj teen baa ngi doon am ndox duy daagu la teen bi tudd Cheikh Omar fa la fekk ay jigéen ñuy root jigéen ñooña maam jaara buso rahmatullah alayhi wa radiya anha bu yaayu Sëriñ Tuubaa moom la woon mu fekk jigéen ñi ñuy root mu taxaw dànd leen joxeñ ne hee ku nekk naan man mu ne déedéet ba maam jaara ne ko man mu ne ko waaw mu ne ko góor góorgóorlu xanaa gisoo leer gi lay wër mu ne ko gisuma dara mu ne ko góorgóorlu bul foyee sa bopp leer googu di la wër boo fexee ba mu dugg la insha allahu taala da nga jur doom yoo xam ne àddina wërngal këpp dinañ ko xam <coughs> amul Serigne Touba borom coow jigéen yaakaar na yeex yi caaxaan la du caaxaan de du caaxaan déedéet booba càmmeñam la fa maam a fekki woon boo demee néeg bi Cheikh Omar nekkoon ak néeg bi maam jaar a nekkoon ñoo dendee fa Cheikh toogoon di jàpp dafa marqué léegi nit ñee ko doon toj ñu mujj simante ko ba boo ñëwee rek da ngay dugal sa tànk jàpp barkeelu fi mu toogoon mu ne yàlla ku bari yërmande la kuy mën a jéggale la mu ne waaye ku bëgg a jur waliyu bul fo yàlla du fekk ku tedd mu ju mu koy juddul fu ñuy xas dëgg la ah nga foog ne wenn awut yi waliyu dana ci génn woyoo ciy génn man maa la ko wax wenn awut woyoo awut maa ko wax wenn awut woyoo awut check down doom down jumbux awut jumbux ci dara dafa am loo xam ne ku ko bëgg ci yàlla danga koy jënd daf la koy jaral ween out woyu out rek bandi out rek check down moo tax góor ñëpp di yëngali taat fi mu jigéen ñee ko waroon di def mais góor ñee koy def léegi ku ci mën dara ku ci mën dara kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara dafa am loo xam ne dañ koy jënd bi Cheikh Omar ñëwee nag toog ci penc mi di waxtaan ak nit ñi ci yàlla rumeur bi commencé di circuler ba yegg Nioro di rib Sayid mii fa la dëkk bàyyam Alaaji Moussa Guèye Sëriñ baaba kër Si moo ko jëlee Dimisqa teg ko Nioro ne ko toogal ma fi Maba Jaxu moo nekkoon Nioro booba maa ngi jeexal Maba Jaxu moo nekkoon Nioro boobu Maba Jaxu yor baatin bi Maamu Ndëri yor zahir bi di jàngale ci daara ji moo tax ñu naan ñooro maamu ndëri maamu ndëri li tax ñu tuddee ko maamu ndëri maamur ba la tudd ndëri ji li ko indi maamur dafa jóge saalum dem jàngi ndar yàgg fa lool xam nga saalum saalum bi wax fay dem lay wax ay xàkkate fa nga dof ak xiiw yooyu la ñuy wax mu dem jàngi ndar nag langage am changé ah. bu ñëwee naan ii dàqal wundu defar xam nga ndar-ndar noonu la ñuy waxee. Uh-huh, uh-huh. kii xanaa dafaa dof waxin yooyu nag mu commencé di ko wax saalum saalum yi di ko ñaawal naan yee maamu fa ndare léegi moo indi maamu ndëri. ah maamu dafa ndare léegi léegi moo indi maamu ndëri. ma jox leen boobu yéen historien yi ngeen yóbbaale ah, xamu leen ko woon ah. wax leen dëgg rek. maamu dafa ndare. moom mu ñu ñu gaawal ko nag ne Maamu Ndëri. ñooro Maamu Ndëri. te ni mu siiwee ndeysaan. ñooro Maamu Ndëri. bi rumeur bi yegsee Maba Jaxu yëg ne Cheikh Omar ñëw na mu jël juróomi dërëm tas ko jox rakk ji maamu moom Maba ne ko jëlal fas wi gaaw juróomi dërëm yi ki may dégg ñu euh, Kaba bu fekkee Cheikh Omar la joxal ma ko juróom yépp ne ko mooy sama hàddiyee ci moom te maa ngi koy ñëw ziyaare si su fekkee du moom rimoor rek la joxal ma ko ñetti dërëm ñaari dërëm yi te indil ma sama ñetti dërëm maa maamu ndëri war fas wi ne cëpp diggante bi sorewul ñooro ak kabakoto sorewuñ bi mu ne cëpp asalaamaaleykum la wax rek Cheikh Omar tàllal ko loxo bi ne ko jox ma sama juróomi dërëm soo demee nga ne maba bu mu am sikk ndax Omar la wala du Omar man la Omaral Fuuti man la Omaral Fuuti maamu moom dafa newaat këlbét ca fas wal rek rëppatal utali ñoor ñëw ne maam ñëw ne maba bul am sax sikk man la ma gis sax waxuma dafa fël sama gémmiñ jox naa ko juróom ya mooma maba waraat fas wi ñëw fekk Cheikh Omar Cheikh Omar xëcc ko dugal ci biir néeg bi ñu jëflante mu génn seedeel ko mbooloo mi jox ko benn bul ne ko bul bi jaa ngi bëgg a taal jihaad xam nga am na ku ko wax léegi eh, imam Masila kan wax na ko Maba Jaxu lim taal ci kan fóole fii ci Saalum rey leen kenn xamut nu mu day ñu mokkal alxuraan ay kan fóole mhm. mu dem bett leen guddi taal ñax mi ci seen kaw ñu dee ñu ne ko lu tax mu ne naafeq rey ko moo gën a jaadu te ñii li ñuy mokkal mokkal alxuraan ay naafeq la ñooy fenal tubaab bi li may def moom ma ba jaxu bi mu ñëwee Cheikh Omar jox ko benn bul ne ko bul bi saa boo ko dóoree mu yegg si ci sa wóom bul jihaad boo ko dóoree mu yegg si sa ndigg bul jihaad boo ko dóoree mu tolloog yow bul jihaad soo ko dóoree mu foddat ba ëpp la jihaatal koo jihaatal yaa koy duma dégg nga faf nag ci gàttal Lat Joor Ngoone Latiir ñëw ci cheikhom ñëw fekk si Maba Yaxu pour tiinu ko ndax dañ ko dàqoon booba histoire bu gudd la bi mu ñëwee maamu ndëri annoncé ko ci Maba ne ko ku ñuy wax Lat Joor Ngoone Latiir ñëw na ñaan dafa bëgg nga fat ko ndax dañ ko génnee mm-hmm. mu ne ah kii de dinaa ko fat waaye ci condition ndax li tax ma di ko fat yaayam daf ma defaloon teraanga dama doon sàmmal sama sëriñ di ko wëttul toolam am sàmm bu ñëw di ruur tool ba ma ne ko génneel say nag mu bañ génnee jaaseem di ma cor ma faf ko rey légitime défense ci islaam ku la bëgg a rey nga rey ko dara newu ci ñu laaj ko diya moom ma ba amu ko yaayu yaayu Lat jor Ngoone Ratiir moo ko joxeel diya ba mu ne loolu ñu ma laajoon te aw ma ko nag yaayam joxeel ma ko teraanga jooju dinaa ko ko delloo dinaa ko fat waaye ci ñaari condition bu njëkk bi mooy dama koy wat rastaam yooyu ba mu set ñaareel bi damay soppi turam tuddee ko silmaxa jóob mu ngi ci histoire yi moo ko indi mu ne dama koy tuddee silmaxa jóob mu nekk ci daara ji di jàng mu wax ko euh, euh, nu ñu koy waxee ti Lat Joor Lat Joor nangu ñu wat ko ba mu set tuddee ko silmaxa jóob mu nekk ci daara ji maamu ndëri di ko jàngal bu ñuy yelwaane nag moom mu ëppal bu demee ci dëkk dóor jigéen ñi dóor góor ña nangu li njor ne leen ku day ni maba waliyu bu day nii du fi nekk di soxla dara ngeen koy denc génnee leen maba ne ko santatuma la yelwaan toogal ceddo la ci gàttal Cheikh Omar continué nag dem Gunjur toog fa liggéey liggéeyam bu rëy ba ba xëy nag taal jihaad gox yëpp mu gindale ko Cheikh Omar bu naan jihaad yi rawxaanu tariqa bi moo koy jiitu ci fi mu jëm bu demee mokkalal ko ba mu nooy bu ñëwee rek day mottali ci gàttal ci gàttal ci gàttal ci gàttal bi am délégation ay sëriñ yu def délégation tubaab bi neexal leen ñu dajee def ay lasraar sikkar ay tur soto Cheikh Omar mënaluñ ko dara ñu dagg rawaxaan bi Cheikh Omar naa ah, dagg nañ sama rawaxaan de yàlla nangu na ndax ñaan nañ te sonn nañ waaye man bi gën a garaaw laa leen di defal ñoom ñi ko defoon ñëpp dagg naa ngir te wali yi ci seen njoboot dootuñ ko jur ba ba ñuy dee kenn ci ñoom dootul jur wali yi histoire bu gudd la ci gàttal Cheikh Omar di dem di dem nag ba yàlla dogal lam dogal ci Bandiagara foofu rek a ma ñor ñu bari li tax ma ne Cheikh Omar deewul foofu lay tëje waxtaan wi mu jeex ñu xam ne deewul ay preuve yuy wane ne deewul laa leen di jox. en 1989. waaw en 1989. surtout El Hadj Tidiane Gadiaga surtout El Hadj Tidiane Gadiaga. nekkoon ak man. nekkoon ak moom. ci chambre 41. ci chambre 41. ci université ci université. benn waay boo xam ne. benn waay boo xam ni. dafa mel ni yaram wi neexul dafa mel ni yaram wi neexul. mu ñëw mu ñëw. ba ci buntu néeg bi ba ci buntu néeg bi. ubbi buntu bi ubbi buntu bi. taxaw taxaw. dal di ma joxoñ dal ko joxoñ moom. ne ma ca sa téere ya nga daan jànge daaw. ne sa téere yi nga daan jàngee daaw. ak sa këyit ya nga xam ne moom nga daan defee. ak sa këyit yi nga daan defee exercice. yëpp laa soxla yëpp laa soxla jox ma ko. ma def ko ci mbuus. mu def ko ci mbuus. jox ko ko jox ko ko. fi ma doon jàppee fi mu doon jàppee. balaa muy génn. fekk na waa ji ne mes. fekk na waa ji ne mes. ñu tëdd guddi. ñu tëdd guddi. am lu xew. am lu xew. surtout El Hadj Tidiane Gadiaga. surtout El Hadj Tidiane Gadiaga. ne ma Cheikh Omar. ko Cheikh moo fi jaaroon moo fi jaaroon. 89. 89 ci gàttal El Hadj Moussa Bal ñu àq de ci jeexal yàlla def nag Cheikh ci mbaaxam li tax ma ne deewul. tubaab bi lu mu bind yéen ñi jàng tubaab. dans les falaises de Bandiagara. waaw il a disparu dans les falaises de Bandiagara. disparu ak mort ak mort benn la ak décédé benn la tubaab de man ñaar laa ci gën a miin ci tàggee ci rajo bi il est mort il est décédé te dégguma ci benn nit nag day màndu loo xamul bul xamul neel xamoo rek. disparaître lañ wax dafa ñëw ba ci gorot bi mu summi jaaj yépp woo taaw bi mu ñëw mu jox ko yépp laal nag ismu ba ko yónnant bi waxoon te naanoon ca maawul xayaat moom la laal rek dugg ci gorot ba ni mes mooy tóot mooy kii bi Abdou Aziz doon wax daf ko junj bam laalee tur nag la mes gorot woowu xam nga ko ci dugg ne mes am na foo dem ñett laa ciy joxe comme misaal bàyyi sànq bu njëkk bi am na ku ñuy wax baabakar njaay mu nekk kër El Hadj ñu bari xam nañ ko léegi mu ngi fii ci jëppal nijaayam ca Saalum at bu jot Cheikh Omar daf koy gane si muy rey ay nag di teral nit ñi góor gi gaañu na daaw jéeg buy Cheikh Omar ñëwee moom rek lay waxtaanal ci néeg bi waaye moom mooy waxal ñi ci des <laughs> te ñaara ko ko may dafa am doom tuddee ko Cheikh Omar ñi ci des ñëpp seen turandoo yaa ngi dund tabaski jot seen turandoo yi xottil leen turandoo Cheikh bi nag di jooy ne ko papa ana sama yére sama turandoo xanaa duma ma indil sama yére xam nga xale rek mu ne ko yow sa turandoo dee na xale bi nag di jooy rek ndey ndeysaan ne ko kon man du ma am mbubb ndax sama turandoo dee na bon ci guddi gi Cheikh Omar ne ko pëkk pëkk mu jóg mu ne ko maa la wax ne dama dee am sama yére yu turandoo ngi nii jox ko fii ci Saalum Babacar Ndiaye mu ngi fii ci jëppal deewagul moom yàlla na gudd fan mu ne ko nag li lay won ne deewuma ak mu jot may naa la ngan ci weer wii waaye yow rek yaa may gis ñi ci des yaay wax ak ñoom te bu ñëwee ceeb ya muy togg daf ciy lekk nit yéen ulamaaw yi wax leen ma ku dee nekk barzaq même bu ñëwee togg ak yow di waxtaan boo tegee lekk du lekk ndax xaalu lekk jeex na ci moom sëñ Babacar si mën na la feeñu nii yàqazatan léegi jox lay secret nuyu la fóon la raay la waaye boo tegee ceebu jën du lekk parce que passé na ceebu jën mu ngi ci xayaatul barzaqiya Cheikh Omar nag day tibb di sax benn ngu ñaar ci Saalum benn tey genn góor gu ñuy wax Aliou Njaay nekk ci tool yi di ji gerte am góor gu ñëw ne ko may ma ci sa saako gerte boobu may ma ci tuuti uh-huh. mu ne ko yow da dox dof man may ji sama gerte nga naan naa la ci may xam nga saalum saalum gerte rek la gën a fonk moom la gën a fonk ci yàlla jaral na ko bañ a julli jaral na ko bañ a def dara <laughs> góor gi ne ko bu soobee yàlla loo bay du baax mu ne ko tukkal fële tukkalóor bu bon bi nga doon da nga iñaan rek sama tool bii moo la moo la xañ jàmm mu bay lépp siti góor gi jaaraat fa Cheikh Omar ne ko lu ma la waxoon mu ne ko du waaye yow yaay kan góor gi mu ne ko boo tolluwaatee ci ji danaa ñëwaat waxaat la li ma la waxoon soo defaatee ma defaat soo soppee ma soppi mu tolluwaat ci ji di ji góor gi ñëwaat ne ko may ma ci sa gerte gi mu tibb àndaar jox ko mu ne ko incha allah dana naat dana saq dana barke mu ne ko waaw yow yaay kan mu ne ko maay Cheikh Omar waaye na yem suñu diggante. bi ci des fii ci Ndar kër Serigne Alpha sama xarit intime la woon Eliman Awa Ba ca Ñooro moo ko jàngal di sëtu Maba Jaxu Ba Eliman Awa Ba moo daan wax ne maay ilimaanu jàkka ji maay maay maay ilimaanu jumaa ji may chef de canton waliyu la ci xadara ba lay fanaan fekk deewuma kenn mënu ko jël ci man ilimaan awa ba ponkal la woon moo ko jàngal ilimaan awa ku ko xam la ak ku ñuy wax cerno abu ci bànduulu booy dem sookoon ci yoon bi ay xarit lañu woon cerno abu bànduulu te boo demee fañ ko rob ci bàndulu mën nga ko romb mille fois doo ko xam te ponkalum waliyu la bokk ci tariqa bi Cerno Abu ca bàndulu Ousmane a ngi mi ngi rek mi ngi woo sax am na yu des yu bari xaju fi ci gàttal ma nekk kër Cerno kër Sëriñ Alfaquma ca Ndar ana soxna si Njaay mu ngi fi war na koo xam ndax xaritu alaaji Tijaan ñang la woon Sëriñ Xuma ah waaw kañ Lamine Diop a nga na le waaw waaw mhm. oustaz Lamine Diop a ngi noonu alaaj ci jaar ñanga ko ron moo ko yar mu ngoog jeex na mhm. jeex na mu gàtt bëgguñ moom dofu alaaji Tijaan ñang la boo ko tuddee rek jeexal na waaye passage la woon dañ fa jaaroon rek dimbale ñu yàlla def nag sëriñ xumma am genn góoru tukkulóor gu daan ñëw ci moom xool ma rek ne ma doom man dama laa sopp ñuy waxtaan Cheikh Om euh, sëriñ xumma ne ma kii ngay gis de xariti Cheikh Omar la da koy gane si at bu jot ca Ndar sëriñ xumma yeggoon nag moom foo xam ni billaahi wal kitaabi ne na moo tax ma ne leen man sant naa yàlla dafa am bés tàkkusaan taalib bi yëpp a ngi toog te sëriñ xumma boo mosaan ñëw këram fekk ko ko fa boo jëlee cent franc ne nangam ak nangam laa doon ñaan lu fekk mu fi sëriñ xumma yàlla ëpp sànni ko ci biir kër gi bu ñëwee cent franc yëpp lay ramassé téye ko bu xëyee suba toog ci ëtt bi ku ñëw mu ne la cent franc bii yaa ko fi indi démb nangam ak nangam nga ci waxoon tàllal loxo yi. yàlla moo mën waayam yàlla mën waayam. ba cent franc yi jeex te par cent franc rek la daan jël. am bés ñu toog maag moom ca ndar di waxtaan taalibe yëpp toog mu génnee ñaari fauteuil yi ndeysaan teg toog ci toog ci benn bi ne ma Chérif toogal ci bi ci des daf ma daan wax ne saa boo xëyee ñëwoo sama kër bàllu ma la ko te diiru li may nekk ndar saa bu ma xëyee dem këram dina rey xar wala béy yëkkati junni jox ma kulla yawmin ma toog ma foog ne lu ne la sëriñ xub ma di def mu ne fotokat bi gorom la mu nga France fekk mu ñëwoon vacances mu ne ko foto ñu mag Chérif photo yooyu mu nga ndar doomam bu ñuy wax Cheikh Xumma moo ko yore Moodu mooy taaw Mouhamad Cheikh Tidiane moo ci topp Cheikh Tidiane moo yor photo ya ku dem Pikine ca ndar nga laajte Cheikh Xumma wala Moodu ma dana la wax lii ma lay wax ñu photo ñu ba yegg mu ne xam nga lu tax ma def ko ma ne ko déedéet mu ne billaahi dafa nosoon nag billaahi Chérif samaam yonant bi moo ma wax ne maak yow ñooy dendee àjjana ëllëg ma bëgg ñu def ko niir fii balaa ñuy dem sallallahu alayhi wa góor gi ñuy waxtaan nag maag góor gi mu ne ma doom xam nga lu ma may Cheikh Omar di ma seet si ma ne ko déedéet mu ne dama doon dem Fuuta ma ñëw gaal gi ma war a jàllale pour ma dem ci dëkk bi gaal gi rëcc ma ma toog ci tefes gi di xaar gaal gi pour mu ñëw. doom mbaa bokkoo ci ñiy sàgganee yóbbante mu ne ko déedéet waxal rek mu ne ko boo demee joxal ma ko góor gu ñuy wax Maxtaar Saaxo boo ko fa fekkul ña fa fekk jox leen ko. waa ji ñëw tey laay door a tudd góor tudd Maxtaar Saaxo dama daan junj rek. bi mu ñëwee fekk góor gi Maxtaar Saaxo tukki moo jàngal Cerno Saïdu Nuuru. wallaay alaaj bi wax na ko ci benn waxtaanam. mu tukki ndekete dañ miraas gannaaw góor gi ku faatu woon carnu carnu Saidu Nuuru werante ci ak kii fa bàyyi woon mu nekk magu daara ji mu ne ko nii la mu ne ko nii la mu ne ko nii la mu ne ko nii la mu ne ko niñ bind Seydi Hadji Malick leetar laaj kon ban moo ci gën a jub bi leetar yegsee ci Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick ne leen yéen ñaar ñëpp am ngeen dëgg waaye kenn ki njuumte borom xam-xam moo ko dal waaye ki ñuy wax nu euh, Cerno Saidu te nuuru jur ko kooku la miraasam jaar yoon ñu di ko werante Cheikh Omar nag yónni leetar foofu biir mu ñëwee nag fekk fa góor gi Maxtaar Saaxu mu ne ko ñebb leetar bi ne ko am dafa am góor gu ma ko jox ne naa la ko jox mu ne ko toogal mu toog mu ubbi lettre bi dafa ubbi lettre bi nag ne daal la xam waa ji ne góor gi may nettale de mu ne maa ngi daan tay ma dee de lettre bii ma indi kii ak taalibeem yii wër ko ma jox ko ko mu xam ci sama kanam man moom mooy sama dee man nee na fi ma toog maa ngi lox pat pat pat pat mu ne ñuy tëpp tëppal góor gi di tëpp tëppal góor gi ba góor gi jóg xiqi nee na ki indi lettre bi ma ne ko maa ngi nii mel ni mu ne ma maa ngi mel ni ganaar gu tooy ne ko maa ngi nii mu ne ma doom ki la jox lettre bi xam nga ko ma ne ko déedéet mu ne ma Omar Fuuti yu moo la ko jox doom miraas mi amoon ci kër gi la doon gàgganti nee na li Malick li li Seydi Hadji atte ci Seydou Thierno Seydou Nourou moo wéy nañ wéyal boobu waa ji ñibbi si nag tëdd néegam di nelaw mu ne Cheikh Omar ubbi bunt bi ne ko pëkk pëkk ne ko dem nga màkk mu ne ko déedéet mu ne ko dinaa la yóbbu màkka ren bul ut xaalis bul ut dara ñetti salaatul faatihi laa la yóbbu màkk góor gi ne ma xëy rek di tàggoo man mi njaxeen màkka de nee na fu ma dem rek ne mi mi ah, xaj mi yaxat màkka de mi yaxat di ma ree naan ki amul lum lekk ne day dem màkk mu ne ma balaa màkk di jot may naa la semaine bu jot dinaa la gane si lenn rek laa bëgg nag taalal ma attaaya rek ñu attaaya ma ak yow nee na semaine bu jot góor gi ñëw gane si ko ñooy bokk attaaya Cheikh Omar nee na ba aj jot mu ne ma demal ci avion ba nga jàng ñetti salaatul faati nee na ma ñëw ba ci avion bi jàng ñetti salaatul yi man la njëkk a yéegal te yoruma benn kayit mu ne ma ñu wàccee Medinatul Munawwara maa ngi ko fekk ci raw du yonent bi mu taxaw ne ma defal sa ziyaara moom Cheikh Omar Cheikh nee na ñu ñëw ci Makka mu tawaaf dajeeg moom mu ne ko tawaafal gaaw te def sa ñaan nee na ba aj gi jeex ñuy ñibbisi mu jiitu ma ci aéroport bi ne ma jàngatal ñetti salaatul faati ma jàng mu ne man la njëkk a rappel mu ne ma ma ñibbisi ak sama mbaxana sama bëñ yu xonq ñëpp naan ndeka ndek xam nga xam dem na Makka fa tabaarakallaahu buñ ko toppee du jeex itte yi bari na soxla yi bari na waaye ku dee yii du ko def bi may mujjee nag pour Thierno Bachir Bég soppeem bi Alaaji Abdou Aziz moo ko def Badou yi doomam ñëw na fii ñëpp gis ko Badou Kandji la Alaaji Abdou jox cinquante mille ne ko demal ma fuuta boo demee ba ci dëkk sàngam na nga taxaw dina am góor gu la romb di sàmm ay xar joxal ma ko ko ne ko mooy sama hàddiyee ci moom mu ñëw indi ko dem ni ko góor gi waxee tuuti rek góor gi ñëw ak ay xaram di sàmm mu ne ko ñabb ne ko sama papa nee na sa hàddiyee la mu ne ko eh waaw boo demee ne ko jazakallahu xayran yal na yàlla nangu nee na jàmm santeeg moom ci euh, façon bu bu rafet te gaaw nee na ma ñibbisi ne papa jox naa ko ko mu ne ko jërëjëf Badou bi ñu ko koy jox maa ngi lay gis. manqué loo ci dara badu jërëjëf xam nga ku ma la yónni woon mu ne ko déedéet mu ne ko sama maam Cheikh Omar mu ne ko papa mënu ma koo na mu ne ko kon doo ko gis ku dee dana lekk hàddiye mu baasarata maam Abdoulaye Niass baal ma imaam ma daanelee boobu rek bu ñu ko toppee du jeex ndax yi ma ci xam téeméeri junni la comme junjoon naa ko te ñëpp ngi ciy bàyyi xel maam Abdoulaye Niass looloo waral mu wëllarante ak Ablaye Gueye jinne boobu ñuy dégg ca kawlax dama ko tuddoon te bañ nit ñi yóbbaale wuñ ko balaa mu doon neex nag ñaar di toog dégg ko maam Ablaye yàlla daf ko mayoon ci xam-xamu jinne daf leen daan jàpp di duma ñoom jinne yi maam Ablaye da daan jàpp di duma di jàpp di rendi jinne da daan def caay-caay mu rendi ko wala mu jàpp ko duma ko yar yoon bàyyi ko mu dem maam Ablaye Niass mi moo tax ku nekk nañ ko bàyyi ak cëram maam buubu jaw ne jiite na leen Kawlax julli di julli sujud bi yàgg lool ne na mat na 30 minutes maam Ablaye Niass te boobu mi jàpp mi wow na nee na ñëpp léeg-léeg am ko siggi xool ndax góor gi dafa faf jaar noonu wala déet sa gàtt kenn ñemewu la laal góor gi kenn ñemewu la yëngu nee na ba yàgg rek góor gi ne sami eh, allahu akbar sànni kaala gi xam nga boo yàggee sëgg ni sëriñ bi def te fasoo kaala gi cat bi day wàcc mu sànni cat bi ñi ci gannaaw yépp ndox laal leen te ndox amu fa mu ne ñu sëlman am ku ko ne ñas gumba abdalaay ñun de waxuñ sujjóot bu yàgg bi ñépp a tiitoon foog ne sax maara day taali waaye daal ndox mi ñu laal ci ginnaaw te ndox amu fi moo ñu jaaxal mu ne ko wallaahi bi ma sujuutee rek la Cheikh Sidi Ahmad Tidiane ak yónent ak yónent bi ñëw teew ci sama kanam ne dawal gaaw ca Inde am na fa sama taalibe buy lab demal nga làbbali ko ci ndigal yónent bi nee na ma fekk ko nag muy nuur pour paree lab ma dindi ko nag di ko réanimer ci tefes gi pour mu xixiwaat ma bàyyi ko mu dem ci ay mbokkam ma door a ñëw mottali julli gi mu ne mu ne leen looloo tax sujud bi yàgg. ah boobu suul war si si fa am benn jigéen boo xam ne nag daf daan def doom bu mu am mu dee doom bu mu am mu dee doom bu mu am mu dee ba bés mu ñëw ci maam Ablaye wax ko ko mu ne ko soo ëmbatee ba wasin buñ ko sangee rek buub kook laytaayam yi indil ma mu dem ba toll ca wasin ñu buub ak sang ba mu set buub ak laytaay yi indi bi junne ji ñëwee ne nuus ci baatu liir bi di ko xoj rek maam Ablaay téye loxo bi ne ko bàyyil doomu jàmbur yi ngay rey lu tax ngay rey doomu jàmbur yi nee na mu ne jinne ji ne rek mu ne ko yow saay-saay nga lu tax ngay rey doomu jàmbur yi wax ma wala ma rey la yow mu ne jinne ji ne patt mu ne ko kon yow saay-saay nga ne defet paakaam tër jinne ji ne ko deq ren ne ndaw si kaay jël sa doom ndaw si ñëw jël doomam yóbbu ngénte juróom-ñaari fan deewul deful dara ah ñu xam ne kon réussir na ko muy waxtaan ak Ablaye Gueye jinne nag ba nettali ko ko Ablaye Gueye rek la tuddoon mu ne ko mu nettali ko nag histoire boobu Ablaye Gueye ne ko yée mbaadu da nga foog ne dee na mu ne ko jinne daa saay-saay moromam la jëli woon ca Inde bi nga ko najee noonu di wax ak moom rek la gaaw dem dem Inde yàlla fayee na ko dem Inde ba mu demoon Inde moom ci la dem Inde dem jël moromam tër ko nga rendi ko mu daw moom mu ne ko Aliou dangay wax rek ma rey ko fii nga naan ma mu ne ko boo boo bëggee ma wax la fu mu ne mu ne ko fu mu ne mu ne ko mu nga ca marché Inde ba di jaay guro mook Cheikh Omar al Fuuti yi mu ne ko ah mu ne ko léegi borom doolee la de ak bari doole mu ne ko woo ko waay woo ko mu ñëw woo ko mu ñëw mu ne ko ah góor gi bari na doole de tuuti rek mu ne ko woo ko mu ne ko bàyyil ma woo ko waaye damay bañ mu woo ko rek fitna am tu mu woo ko jinne ji ne dareet ci néeg bi fees néeg bi dal di leen bay ba bëgg a fàtte seen nooyi maam Ablaye naan ko waaye ali gi jinne wax ko mu dem waaye wax ko mu dem wax ko mu dem salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu